أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ۖ واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم تايني وان في ايربور بلاس جان ني وان تيرو كاندا ميغا خا نني بوركينا فاسو Euh, ngir bokk ci grand prix Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu war ko amal ñaari fan yi ci kanam ak ñetteel ba war a doon cérémonie bi incha allah euh, délégation bi mi ngi doon ci njiital si Ahmad Saloum Dieng mi nga si Ahmad Saloum Dieng Nasruddin mi nga xam ne moo yor euh, kuréel bi nga xam ne moom lañ dénk wala commission bi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu relation relation extérieure ambassadeurs yeeg silk diplomatie lépp lu ci aju moom moo ko moo ko moo ko jiite. Eh, moom itam ci taxawaayam la invitation bi sotte moom moo invité waa burkina faso ak mauritanie ba ñëpp ñëw nañ incha taala kon candidat bi mi ngi ni fas na yéene ci grand prix jaxamat bamba xadim rasol fas yéene bokk ci final yi ngir jongante ak xale yi nag teg dégg ngeen jàngam alxuraan mi nga xam ne eh, jàng fi léegi macha allah kon ñu ngi koy dalal jàmm di ko wax ni ko agsi na ci am réewam agsi na ci ay bokkam agsi na ci ahlul xuraan ñu fas ko yéene dalal yóbbu ko teral ko inshallah taala ba yef yi jeex ñu delo ci wat ko fi bu dugulat ko mu delu ci jamm ak salam ñu ngi dal suñu gan gi di abdou fatah bafo joge rew burkina faso ñoo fasiyene bok ci jaay sur cheikh mohammed alami al qur'an karim euh comité de pilotage bi am ci ñen ñu dépêché wu joge dakar joge malika joge kër massar ñew téru ko ci nigel coordinateur bi euh, gan gi nak ganu senegal la ganu alquran la ganu touba la ganu rew mi yep la ganu domi dar yep la euh ñi ngi ñaan nak kep ko xamni dugul won sa loxo ci bir bi nga dugul sa loxo ndax liñ ci bëgg mooy xale yi raw am na neexal yoo xam ne mosuñu ko amee fenn moo tax dugal bi weesagul eh, nit ñaa ngi dugal ba tey na barke yu dugg lépp dugg ndax xam ngeen ni ay volonté ay bonne volonté ñoo ko du institution moo ko taxawal du kuréel moo ko taxawal waaye ay bonne volonté ñoo ko taxawal di ay doomu Touba di ay doomu alxuraan karim kon ñu ngi dalal gan gu tedd gii di gan alxuraan karim fa yéene ko yóbbu ca Touba al Mahrousa fas yéene tey wala suba mu saafonte xalif général des Mourides jàng alxuraan ci kanam moo gën nga jógee Mauritanie léegi dama seen jili ni ñu ngi organisé pour suba incha allah ñu nuyu xalifa bi fas yéene ko dalal ci Touba euh, def ko gënuk alxuraan di jaajëfal nag mbokk yi nga xam ne ñoo taxaw ci concours bi ndax yaatal nañ ko ubbi nañ ko ba képp ñu yaakaar ne mën nga cee tàbbal sa xam-xam wala sa xarañ wala sa tuuti expérience nga dugal ko ci loolu mooy dugal ci mbir mi ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmani jaayise bi ci programme màggal gi waxuma dugal ko ci eh, ci programme màggal gi mais ubbee ko programme màggal gi loolu tawfiix la te loolu de gën a jaajëfal ñi nga xam ne ñoo am initiative bi